وعلى آله وأصحابه أجمعين من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبني سنتي الله بجيك يا نمسي seen ñaan ñi nga xam ne moo ñu fi dajale ci lépp xam ne xelum nanu ko suñu borom wa taala buñ bindee bindee fi bindu suuf si indi ñu ci ba léegi doomu aadama yi dañuy yéemu ci li suñu borom di yéemu ci asamaan yi ak suuf si ak ñu ko suñu li nga xamee ne lépp loo teg sa bët loo tegul sa am na lu ko tax lu ko tax a jóg mooy mukk la ci suñu borom nangu di kéemaan boo xam ne amul yemukaay loolu suuf si ak yi ci nekk doye waar asamaan si ak yi ci nekk yëpp doy waar bu bind moo xam ne it borom xam-xam yi dem dayo yëpp mosu suñu toll di jàng ci moom di yéem ci moom di gis bis bu nekk ci moom loo xam ne mosuñu koo xam ci ay ngëneel ak i kéemtaan yu jaaxal bépp borom xel ak bépp borom xam-xam mu di sayidul wujud sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu borom dund dund lépp ci leeram gi la ko dund ci la bind aras ak ci la bind adduna ak alaxira ci la bind asamaan suuf ci la bind yonent yi ci la bind malaayika yi ci la bind siddiquuna ak aarifuuna billahi yi ak aqtaab yi lépp njëkk njëkk a bind def ko ci ay jéeji kéemaan ak kumpa ak i màgg jéeju kàttan géeju teraanga géeju xam-xam géeju ramm géeji leer géeji njub géeji tabe géeji xikam bu ci nekk mu am ca axqaaban axqaaban mooy jam u xoqub xoqub ay junni junni at la lu xel dajul jën bi ci nekk leeru sallallahu alayhi wa sallam di ca sàbbaal boromam xeeti sàbbaa yu mel ni mbindeef xamul bi ñu ñëwee ci àdduna ba bi ñu fiy jógee nga xamee ne matal na géej la suñu boroom azza wa jalla xool ko bëtub yërmande mu fett rooxi yonent yi ak malaayika yi ak muqarrabo yëpp fette ca fekk jaamu na boromam lu kenn xamul ci ay junni junni junni ma boobale barkeem moo tëbb yonent yi tëbb malaayika yi tëbb aarifoona billaahi yi suñu borom li mu njëkk a sopp ca azal ba mu bindagul dara te xam lépp ndax suñu borom nekkul ci jamono yi démb wala tey wala ëllëg lépp a teewoon fi moom mën nay wax ak xam ne féeg téeméeri junni at lay juddu la muy waxee koo xam ne ba mu juddoog léegi ëpp na téeméeri junni at booba la leer sallallahu alayhi wa sallam benn ferñeent ca leer ga tëbb yonent yëpp ak malaayika yëpp mu ñëw di mbindeef mu jéggi dayo ci xeetu ba wu nekk xeetu séemaan wu nekk suñu borom nag def ko muy doom aadama xam ngeen ne suñu borom doom jinne luy dox ci suuf ak luy naaw yépp ci leer googu leen bind daan faral di wax ne malaayika yi la bind ci leeru kese bu jaxasoowul ak dara jinne yi mu bind leen ci leer koo xam ne mu ngi tukkee ci safara muy seen cosaan bind nit ñi ci leer gu ànd ak leer gi jaxasoowul ak dara mu di leerub malaayika amul ban amul safara muy dunde leeru yàlla rek ci sàbbaal ko ci màggal ko ci yëkkati ko ci tagg ko ak ci kariñ ko jinne ñi jaxasoog safara safara di cosaanam safara am tàkk-tàkk am saxaar saxaar di lu lëndëm di lu tëx moo tax jinne leer jaxas topp bànneex ak jibari nit bind ko ci ban leer gi dugg ci ban gi ñii bi su borom séddalee wërsëg yi ci leer gi doomu aadama yi ëpp leen ci ku la ëpp wërsëg ci leer moo la gën a mën a muñu bànneex bu xaraam moo la gën a bëgg yàlla moo la gën a sawar ci jaamu bi nga xamee ne nag doomu aadama moom mënul xam boromam fekk luñ ko ko malaayka muy bind ci leer rek moom day féey ci géej gi leer yi suñu borom aajo woon ku ko waar aajo woon ku ko jàngal aajo woon ku ko waar ku ko néew seenu leer ëpp ca seen saxaar mooy jinne yi gëm tuub dugg ci diine doomu aadama li sàkk ci biir seen moroom doomu aadama mu ñoom ci lépp ci zahir amee yaram amee cër yi doomu aadama yi amee yëpp di yëg li doomu aadama yi yëg di xiif di mar di sonn di tawat di wéer di am ay bëgg-bëgg di sàkku di am ak di ñàkk la mu sàkku waaye nag mu wuute leen doomu aadama yi bu di yonent yi yonent li mu wuteeg doomu aadama suñ borom daf ko jox melaw malaayika jox ko melaw doomu aadama melaw malaayika wi day nelaw fokk ñu yee ko moo di yonent wax yoo koy xamal li mu wuteeg nit ku dul yonent ak lu mu mën a doon moo di yonent dafa mën a génnee ci doom doomu aadama gi mu nekk dugg ci malaayika ba di gis li malaakay gis di dégg li malaakay dégg di xam li malaakay xam mu am nag leneen lu mu gëree malaayika mu di ban bi ñu ko booleel tabax ko ci suuf ba noppi mu am leer bu ëpp doole leeru malaayika bay jubal bu yeneen doomu aadama loolu nga xam ne yonent soo xame ne malaayika dig na ko li dig ci moom dal di yow ëpp doole li dig doomu aadama ci moom mu mën a dékku waxi malaayika am nag bi mu nee malaayika yi yonent yi malaayika yi kenn xamul seen lim am na ci fukk ak ñaar fukk juróom yu alquran indi seen tur waaye moom sant nañ nu ñu xam seeni tur xam seeni liggéey ñi ci des xamuñu seeni liggéey waaye am na malaayka yu bari yoo xam ne seen liggéey ci doomu aadama yi la nekk dañ leen a dénk doomu aadama yi am lu ñu leen ci sant ñu di ko jëfe jëflanteeg ñoom bu ñu leen gisul yëguñu leen it daal ca waxtaane aslëf nga xam ne ne doomu adama suñ borom sàkk na si ñoom ku mu yónni te jox ko melo woo xam ne ci la mën a déggoo wax yàlla di gis malaayika ni ko malaayika des di gise li ñuy gisante ñoom seen bopp ba ëpp leen kàttan yonent yi téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni yooyu ñu doon muy ñi nga xam ne suñu borom daf leen sol leer ak xam-xam sant leen ñu waare waaye ñetti téeméer ak fukk ak ñett wala ñeent rek lañ ci jox ay téere yoo xam ne dafa ñëw ñu digal ci doomu aadama yi tere leen ci ñu war leen koo xamal ñu war koo topp buñ ko toppee texe buñ ko toppul duñu texe ñett téeméer fukk ak ñett yooyu ñu tànn ci juróom ñu ci gën a kawe mu di ulul azmi juróom yooyu am am ci kenn ki nga xam ne moom laa waxoon ne lépp lu suñu borom bind ci leeram la ko bind mu di rasulullahi sallallahu alayhi waxoon ne ñi doom aadama yi nga xam ne borom yi xam-xam la ñu ñu yéemoo ci kéemaan yi suñu borom def seen xam-xam may leen ñu àgg ca man koo settantal ba mën a gis la ca yéeme ba yéemu ca noonu ñu yéemoo ci loolu la ñuy yéemoo ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu mu dikkee ji doomu aadama bu ñu doon doomu aadama yi ci zahir ci lépp wuuteeg ñoom wuute gu doy waar waaye nag dafa war a yëg li doomu aadama yëpp ngir ñu mën koo roy mel ni mu ni ñu mel ci lekk ak naan ni ma ko waxee man léeg-léeg sàmm ñu ñëwee nag dund na fi juróom benn fukki at ak ñett bi ñu koy yónnee am na ñeen fukki at bi ko yónnee toog na ñetti at yoo xam ne wax yu bi waxi suñu borom ji jóge asamaan malaayika di ko ko indil toog na ñetti at yoo xam ne dafa dog dikkatul ba mu am ci naqar am ci jaaxle defe ne boromam daf koo bàyyi mee ko wacc ko ba xelam dem ci na yéeg ci montagne bu kawe sànni boppam ci suuf ngir génn àdduna ndax li nga xam ne su borom tàmbali woon na ko koo won yen bi mu ko tàmbali woon a yen kawteef yi mu ko tàmbali woon a wan ñàkk gi mu desere ñàkk ne ko naqari ko ba bëggatul dala ci àdduna ba mu xalaat loolu booba nag ndax su borom delloo si nag wax bi nga xam ne moo koy xamal ne sa borom bàyyi wu la te du la bàyyi mukk yow yaay ci mu tànn te lim la sant da nga ko matal ci kaw suuf da nga ramm jaam ñi suñu borom daf lay yónni nga yërmande mépp mbindeef daana waxtaan bi tax mu yërmande mépp mbindeef ku gëm ak ku gëmul ku weddi ak ku nangu ku topp ak ku toppul li mu leen fekk yeneen yonent jiitu woon na ko ñi ki nga xam ne nag li ñuy wax mission mu di liñ ko yónni du jeex mukk beneen yonent du ko wuutu mukk yonent bu nekk dafa am nit ñu ñu la yónni nit ñoo ñeneen ñu la yónni boo demee ba nga xam ne ci àpp bala yàlla ci suuf doomu aadama ci ci ci gaaw fàtteem ci toppam bànneex dem ba sotti la nga jàngale woon ba mën a xettali nit ba texeel ko suñu borom yónni beneen yonent xam ne kooku kon suñu borom yónneetu ko la mu indi woon def na ko la mu na a rafete ba mat jóge fi nag doomu aadama nag réere ko fàtte lii yokk lii dugal ci lu ci bokkul ñu yónni keneen kookee ñëw nag moom suñu borom yónni si jaam ñi moom it ba ba muy dem ba ba keneen di ñëw sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee xam na ne mooy mujj yonent alquran wax ko beneen yonent dootu ñëwati mukk mbindee fi seet ko seet ay mbiram kenn ku nekk ak fa sa xam-xam kenn ku nekk ak na ko gisee ñi nga xam ne histoire rek lañuy ñuy jàng zahir rek lañu xam gis nañ ne mooy mbindeef ñi gën a yéeme ci doom aadama yi ñëw suuf dafa ñëw ci xeet wu woyof xeet yu ñàkk xam-xam ñàkk civilisation ñàkk organisation ñàkk ay njiit kenn yiliful kenn ñuy jaamu ay xërëm mu juddu ci famille boo xam ne amuñu civilisation amuñu xam-xam amuñu ngóor muy koo xam ne dafa juddu di jirim tekkul bàyyam ci àdduna mu am juróom-benn at yaayam jóge fi fenn jàngalu ko lu ko wër lépp réew mi nekk yépp amuñu li ñuy wax civilisation amuñu benn xam-xam doonul alal doonul nguur mu benn jëmm rek tàmbali di woote nit yoo xam ne kenn mosu leen a woo nga ne leen man de yàllaa ma yónni te ngay nit ne ñoom bu nañu di la gis wuute woog ñoom dara ci li ñu xam muy lu yéew mu dem nag ci njàmbaaram ci xelam mu rafet ci mën a muñam ci xam-xamam ci matam dem ba def li ñuy wax empire maanaam yilif ci kaw suuf loo xam ne mel ni mbindeef mësul yilif lu yaatoo noonu mu jeexital ci doomu aadama yi jeexital boo xam ne mel ni mbindeef mësu ko def li ñuy wax les Mongols Mongols yi rek ñoo mësoon def empire bu xaw a toll ne bi mu def waaye raaf na bu yàgg fàtte nañ ko Muhammad sallallahu alayhi wa junni at ak ñeenti téeméer gi topp ba mu fi jógee léegi lam ci bawoon day yokk bis bu nekk ñu mokkal xeet yu ba dugal leen ci lislaam xeet yi ñu dugal ci lislaam ba mu fi jógee ba léegi dañuy yokk bari ñu lislaam ji ñu seet man mbindeef moo fi sa def lu mel noonu mënuñoo xalaat kenn ku def lu ko jege diine joo xam ne dara wàññikuwu umpale wuñ ci dara kenn xëttuwu ci dara téere boo xam ne na mu wàcce woon la teewee ba léegi mel ni mu def dong la muy muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu fekk ne kon ñiy xool zahir rek nangu nañ ne amul morom amul nawle ne benn américain nga xam ne moo bind les cent seet téeméeri nit ñoo xam ne kenn ku ci nekk dikk na ci àdduna bàyyi ci kaw suuf si loo xam ne jeexital na ci nit ñi yàgg fi sax fi jëriñ nit ñi soppi leen walbati leen waaye amu ci kenn koo xam ne genn wàllaatu li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam def def nga ko kooku nga xam ne du woon jullit sax parce que rek liggéey bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam liggéey ba moom ci boppam moo nangu ne buñ xamoon yonente gi teg fee amul benn jëmm bu def lu nuroog li mu def kon nu bëgg a waxtaane njàmbaaram googu muñam googu xelam moomu sagoom soosu teeyam googu mu teey matam googu mu mat xelam moomu mu waxtaan woo xam ne mën na gudd lool mën naa yaatu melo yooyu melo wu ci nekk dañu koy wane ba mu leer ñu xam ne kii melo ku ko ci fekkit jotuloo ko ci wala jege woo ko ca doy na ci dogu ni ma waxe woon jirim bu juddu ndeyam amul dara bàyyam amul dara ndeyam jàngul bàyyam jàngul réew mu nekk jàngul xamuñu yàlla ay xeram lañuy ñuy jaamu jërmul wuti lenn fenn mu mel noonu ba def loolu buñ seetee njàmbaaram daan waxtaane ay xew yoo xam ne wane na ni fit moo ko ëpp ci yàlla bind muñu moo ko dàq ci li yàlla bind xam-xamit mel ni mbindeef moo ko si jot mënula nekk naka noonu ak lewatam ak sagoom buñ seetee melaw zahiram ñu ci jëmm rek di toox wala mu taxaw nga di ko xool mu doy na man ci wet bu nekk ci cër bu nekk ni ko yàlla binde kàttan gi ko suñ borom jox te feeñul ci jëmmam doy na ci bi nga xamee ne bi mu reconquérir bi mu mokkalee Makka ba dugg ci fekk kaaba gi kuur bi nga xam ne ci la ko wër lu mat ñetti téeméer fukk ak nangam ci ay xërëm nekk mu daaneel yépp benn xërëm bu nekk ca kaw kaaba ga nit mënu ca teg loxoom mu ne Seydina Alioune ñëwal tungoom ma moo tëram bi di Alioune dëggee ci maggam bi mu dëggee ci maggam Alioune Alioune mën jóg ndax di saay Seydina Alioune xam nga ni mu bare kàttan ak ni mu jàmbaare jéem jéem a jóg mënu la jóg yonent bi sallallahu ko yéegal ci sama kaw mu yéeg Muhammad sallallahu alayhi wasallam jóg taxaw mu woyof ba mel ne xob Alioune nee bi ma taxawee ci mbaggum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm naa ne bu ma yëkkati woon sama loxo teg ko ci asamaan si di kéemaan bokk ci kàttanu yaramam ku ñu wax rukaana benn bërekat la woon boo xam ne réew mépp moo ci mën ku bëri moom rek mu daan la moom nag sallallahu alayhi wa sallam ba fekk ko ci benn xur nuyoo moom ne ko waaye rukaana ba tey jotagul nga tuub dikk ci li may woote texe ëllëg mu ne ko li ngay woote seet naa ko seet waaye mënuma cee dugg mu ne ko waaw xanaa doo laaj ci man bu ma war a def boog ba mu gëmloo ne ne li may woote rek kay dëgg mu ne ko ah kay man lu bëree boo ne benn daan mu ne ko ay wañoon ñu ne caasal rek muy yan ko ba biir bi weex mu ne la waaye yow ah lii de doy na waar yow mii nga daanee waaw daal ne nanga waaw ñu ne ko seetaat lu ay wa njóotee mu dellu ko daanaat jéggi bu gën a rafet ñëw daal day ko waaw waaw waaw nañ baal ma jéggal ma rek mu demaat mu daaneel ci ko ah yow ne da yaa dàq njabar ci adduna mu ne ko ah, man du moom jabar yonent la waaye mën naa laa dolli leneen def ci mu ne ko dolli mu ne ko garab gee bu ma ko woowee mu ñëw ba ci yow ba tey da nga gëm ne yàlla ma yónni mu ne ko waaw loolu boo ko defee ma gëm sallallahu alayhi wa sallam ne garab gi kaay wuyul rukaana garab gi dal di guddiku doxa ci reenam ba agsi taxaw ci kanam rukaana bu sànni ne ko wax ko mu dellu garab ga delluwaat sax fa mu saxoon rukaana ñu ne lu muy def mu daal di nënk la ko bëggam rek sam ko xelam yéen am jabar bi sut ci adduna <laughs> man ngeen a dëkk waa suuf képp ñu ñëw yéen leen di man Muhammad day jàng ma góor ci suuf ñetti yoon ñu ne ko waaye yow li ngay wax caaxaan loolu mën na ne lekk woo na sax mu ñëw ko ah kooku de kon moo dàq njabar boobu jabar da jabar bu rëy rëy rëy te de tax na ñu nangu suñu borom mu tax ci xol ya ñii seen lëndëmu xol dajagul dana ma sa dañi ñii seen lëndëmu xol du dañ mukk ñoom ñëpp ñoom ñëpp lenn ci tax a kon ci kàttanu yaamu muhammad sallallahu loolu doy ni ci yonent dafa yen bu diis boo xam ne duñ ko jox ku yaafus mukk jàmbaar lañ koy jox joo xam ne du sonn mukk dañ koy jox koo xam ne du ko néew doole borom kàttan lañ koy jox ki ñu koy jox itam jikkoom yëpp day mat buñ ne waaw fitam nag ak sagoom ñu ne ah ba buñ ko seetee daan xam ne benn mbindeef jegewul rasulillahi sallallahu taala wa sallam Muhammad rasulillahi sallallahu taala benn bis dafa ànd ci xare dafa mu jàdd na xuus ci benn ndox yére yi tey mu summi ko weer ci doj dal di sëwéen nii di xaar ba mu wow ku ñu wax suur benn jàbbaar la woon saay saay sa soxor dikk di ko yoot ba ne ca sidjaati ji xàcc ko tiimale bopp Muhammad sallallahu alayhi waaw moom nag tey nag ana ku mën a dox sama diggante yow ba rey ma la mu ne ah yàlla mel na rek dara amul ànd ak sabam ba nga xam ne rek dafa mel ne kenn yoon gànnaay tiim ko waaye ba mu tontoo rek euh, dox moom di tiit di lox ba jaasi ji wadd wa sallam daal fukki jaasi ji ne ko waaw yow nag ana mën a ku a mu ne ko kenn mënu ko mu ne ko jéggal naa la demal bi Seydina Omar radiyallahu taala anhu bu mu tuubagul xam nga ni moom it sax daf daan bëre mbër mu mës a indi mu daaneel la fasinaaru góor la daan war yu am doole di ko dawal di ko feccal di ko kuy jàmbaare ku am xel itam bi nga xamee nag suñu borom def na ci moom mu war a tuub ñu laajee fu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk ñu ko mu ngi Arqam ibn Abi Arqam la jullit ñi daal nëbbu bu ñu dee julli ndax booba néew nañu doole yéefar yi taxaw leen temm dañ leen fekkee ñu julli ñu mbugal leen wala ñu rey leen ñu daan dugg ci kër boobu tëj ko di fa jaamu léeg-léeg ñu di soppante ay xalaat ci seen mbir nga xamee ne nag Omar agsi na ba dóor fëgg bunt bi am ku ñu yebal dikk yër ko dikk ni de Omar ibnu Xattaab na de ñu ngi gàddu jaasi ñu ne ah kooku de kenn bu ñu ubbee bunt bi dañu ñëpp lay rey yàlla tamit sallallahu alayhi wa sallam daal ne bëri ndax daf leen dëkk ne ubbi leen ko bu indee jàmm fekk fi jàmm bu ay ñu rey ko jaasi jooju mu ñuy kenn ñu ngi lay jóg rasulullah sallallahu alayhi wa di jóg daal di pepp bunt bi mu ubbi ko bi mu bu mu tiitee dal di xaatu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko loxo tëyee ci gënee tubéy gi peq ko ni ko doo dañ mukk ci sa dëgër bopp gi ak sa dëng gi ba musibam yàlla wàcc ci sa kaw mu xaacu woo ko ne ko man tay dama ñëw ngir tuub ñu ñu yenu ko ak si ko bés ko ba mu ximmali ko dal di tuub noonu mu def la Umar ibn Wahb def moom itam rey sallallahu alayhi wasallam rek ko taxoon a jóg moom nag dafa jóge woon ma ñëw Madina te sa boobu nekk nañ ko ay yoon mu abse gàddu jaaseem ci amar moom bi mu ko rombee rek te dafa ne dañoo jàpp doomam ci xare Badar dafa ñëw nag ngir jox ko ngir joxe alal ngir ñëw bàyyi ko doomam fekk na loolu tax koo jóg la mu waxtaan ca mbestarum Kaaba ga ak beneen moroomam sallallahu alayhi mu ngi koy dégg fi mu nekk ci Madina diggante bi xam ngeen ne euh, juróomi téeméeri kilomètre taqriban mooy mu wax bi mu accès yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool ko laaj ko mu ne ko sama doom ji ngeen jàpp daal laa bëgg ngeen bàyyi ko dama bëgg lu ngeen mën laa ci alal bu ne ko déedéet loolu tax laa jóg la nga waxante diw ca kuuru Kaaba ga waajo ji dal ne te sax mu ne ko loolu la yëkkati mooy nga ray ma koo xam ne dina la gàddul sa njaboot gépp dana leen booleeg njabootam amee leen ndax da nga ne woon bu dul woon loolu rek nga ñëw rey ma mu dal ne ko yow day yëngu naa ne yonante nga ndax loolu bi ñu koy waxante day benn jëmm te man maa ko njëkk a jóge fii nga xam ne kon waxtu wu dee xawee li nga xamee ne Seydina Ali nee na xare bu méttee ba metti ba metti ci moom la ñuy laax ci yonente bi waxtu nekk rek mooy gën a jege noon yi mooy gën a jege ñi yéefar yi gën a jege si jullit ñi gën a xemmem ci rey jullit amee seen gànnaay sallallahu alayhi wasallam moo leen di gën a jege xam ngeen ne saxaaba yi ñaari yoon wane nañ ko gannaaw ci xare yow ma xamee ak Uhud Xunayn nga xamee ne yëfa yi dañoo am pexe mu doy doy waar loolu di li ñuy wax défilé benn xunt bu nekk diggante ñaari doj ñu làq ko wet gi ak wet gi jullit ñi ne bu ñuy bi ñu duggee rek ñu sett yi mel ne taw boobu di dal ci seen kaw ñu dal di wane gannaaw daw Abu Sufyaan ibnu Xaaris ibnu moo taxaw yëkkati baatam fu gën a kawe yéen jaami yàlla yi walbatiku leen yéen ñi jaayante woon ca suufu garab ga garab gu mel ne séng la samura yaa asxaaba samura rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk ca wetu noon ba yëkkati baatam di woo jullit ñi istusiduuna wala talwuuna wa rasul yaduukum fi uxrikum fa asaabakum xamman bi xammin ba jullit ñépp seen i xol yéeg la ba ci seen baat ndax tiit yéefar yi wër leen ndomba ñu bari daw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rekk taxaw nga Abu Sufyaan ibnul Xaaris ak beneen kuréel bu néew nga xamee nag dégg nañ baatu yonente bi dégg baatu Abu Sufyaan ñu soog a wàññi dal di àkk nag àkkum gaynde dal di faagaagal nag yéefar yi noonu lañ defoon ci Uhud itam bi nga xamee ne ne jullit ñu bari jullit ñi daanaka yëpp daw nañu ba mu des ñu néew ndax dañoo siiwaloon ne rey nañu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xare mooy bi gën a métti ci xare bu yor ci moom sallallahu alayhi sa xare li ko waral yëpp mooy jullit ñi dañoo mooy ndigalam ñaari yoon bi ñu xare Badar jullit ñi di ñetti téeméer rek ak fukk ak ñett dàq junni waa Quraysh rey si ñoom si ñoom def leen jaam ñooñu am naqar lool góor ña ak jigéen ñépp ku ci nekk di xas ku ci nekk di fàttaliku sa baay bi mu rey wala sa maam wala sa nijaay wala sa xarit jigéen ñi seen borom kër fu ñu toll di fàttaliku loolu def ko naqar nga xamee ne njëgg mi ñu daan def benn karawaan boo xam ne ay gëléem lañ daan sëf ay marchandise jëlee ko Syrie Cham di ko indi Makka muy marchandise mu ñuy jaay nga xam ne waa Quraysh dañoo amoon ñaari rexla waxtu sedd ak waxtu tàng ñuy jëndi marchandise moo xam ne képp koo xam ne jëloo nga ci Makka da ngay génne jox ko ñi ñu ñu amee seeni gànnaay jël jëndi marchandise moom a indil leen ñu di ko jaay xam ngeen Makka duñu bay ci loolu lañ daan yëy bii la dem Yaman bii ñu dem Syrie ba ñu dikkee nag seen alal jooju yëpp ñu ne bu ñu ko jaayee li nga xam ne mooy bénéfice bi bu ko kenn jëriñoo nan ko waajale xare boo xam ne damay dangay yu ji ni nu Muhammad def ci Badar waajal Uhud Abu Sufyaan mu nga xam ne moo doonoon njiit la gën ci acharné moo jiite karawaan bi nga xam ne moom la jullit ñi dogale woon nga xam ne nag jaay nañu seen njaay mi ba am bénéfice bu bare bare bari mu jënd seen i gànnaay seen fas seen yóbbal fas yéene nag bii yoon jeexal jullit ñi tàkk ba fenn di ca def xam nga booba Abbas ibnu Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tuubagul woon waaye nag gannaaw Muhammad mbokkam la mu daal bind benn lettre ci fekk pexe moo xam ne da mën a mucc ci ñoom ñu xamee ne lettre bi ak si la yonente bi sallallahu alayhi jàng ko ba noppi nëbb ko dal di ñun ci jullit ñi mu xamal leen ko dal di ci xalaat ñu ne ah moomu mbooloo nag ak yooyu gànnaay ak boobu waajtaay kat mënuñu ko dékku Madina daal dëkk la boo xam ne ca jamono yooyu ay montagne ko wër ci wet bu nekk nañu toog ci biir dëkk bi bu ñu duggsee ñu xeexal ñoom ci mbedd yi jigéen ñi di leen sànni xeer yi di leen xaañ duñ ñu mënal dara Madina benn bunt la am bu ñu mën a duggee ñu dajaloo fa ñii nga xam ne dañoo wuute woon badar te tuyaaba juree jooju fa jóge ñu ñàkk ko naqari leen ñu ne déedéet lan gën dajeeg suñu noonu yi xeex ak ñoom ba ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom xalaatam moo doon nañu toog xaar leen ci ba ñu dugg si ci dëkk bi nu mën leen ku ñëw Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul nga xam ne naafiq yëpp moo doonoon seen kilifa gën cee dëng wane ne tuub na ba noppi di fexee jullit yi rek ak di feeñal seeni secret moom xam yonent bi xalaat ne dal na yonent bi ñun de Madina gii bindeef benn xare mosu koo dugg fekk nu fi te gañewul ne waaye buñ masaan génn xare rek ñu gañenu saxaaba yu mag yépp itam boobu xalaat lañu amoon waaye xale yeeg ñi fekkewul woon Badar ñi gën a bari daal ne déedéet nan buñ déggee ñu ne daal ñoom jëm si nañ ci nun nun nu làqu ci dëkk bi bañ a génn daañu xam ne ne nun dañoo ragal te kon diire arab yi daañu ñu yàpp te kon daañu am xemmee mu dal suñu kaw ah ñoo ñëpp doole dégg nga duggee ci néegam sol mbubbu koŋam la ñu xaree ko laxasaayam sol mbaxanam weñam ak yi nga xam yëpp kuy xare moom la saxaaba yi ñeen ñi daal di amuk réccu ne daal ah, yonentu yàlla bi daal ba def loo ko suñu xalaat nan ko wax daal mu jekki mu ne leen ak yonent boo xasee ba jóg ba takku ba sol ay yërëm amatul sañ-sañu wa dellu gannaaw te dajewul ak noonu wala noonam daw dellu gannaaw génn mu tànn nag settkat yi arche yi ñi nga xam ne ñooy sett mooy leen yëg leen ci kaw montagne bi mooy oxut ca kaw jollastan la fas dafa ragal set bu fas yi jëm see ci ñun rek na ngay set set yu bari waaye lu yàgg yàgg bu leen jóge fi leen set bu ñu gañee ak bu ñu gañee na ngay ñëm foofu rek ñoo ñi itam léeg-léeg ci ciy gañee ah dañ tàmbalee di giiroo li yéefar yi amee ñoo ñi itam daal di bàyyi place ñi ci des ne leen ah yonent bi newoon na buñ fi jógee ñu ah, xare bi jeex na am ñenn ñu fa des ñoom di xeex ba ñu rey waaye ñooñu ñu daal ñu gën a bari daal di wëññi xam ne xaalis bi mu wëri jàmbaar nga xam ne booba tuddagul moom daal di loolu xam ne fettkat yi leen te woon a agsi te fa des léegi bari ñu mu daal di jaay te foofu nag la ñu leen di nit ñi xam ne ñii daan dajee xam ne dañuy def ay ay sàppe ay rang ñu jàqali kenn xam ne du sa morom gisatuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ubay ibnu Xalaf di xam ne ne rey na Muhammad jullit ci bari daal di fàq daw ba àgg Madina ci def réeroo xamuñu Muhammad mu dund wala dundatul kuréel bu néew def karam ali ibn abi talib abu bakar umar abu dujana et cetera talha zubayr bis bobu nek dañu gasoon kan moo xam ne yonent bëgg julit ñi talha ñoo jàpp ci loxom génne ko ñu dóor ko nag bu bañ bi damm ba ñu suuf bi ko nag ba ni mu jaaro yi ci ba nga doon senti bëñam dafa wadd yonent bi alayhi salatu daal di yéeg ci kaw doj wa moom mu néew ci jullit ñi ñi des Abu Sufyan daal di xam ne gañe na nag gañe na xare bi waaye dégg nañu ne rey nañu Muhammad xamul dëgg la wala déet mu daal di jóg taxaw daal di ne sunu yàlla yi daan jaamu moo féete kaw seen yàlla jooju moo ko ëpp doole gàcce da ngeen ñu taqaloon ca Badar raxas nañ ko ba mu set taqal nañ leen ko tey yéen a seede suuf si na Omar na yéen ndax ma toll ko mu ne ko waaw Omar jóg daal ne ko nga yàlla seede kaw tey moo seede kaw ëllëg te mooy seede kaw ba faww te seen mucc ci mbon rek lay mujjee bu leen bu leen naagu Abu Sufyaan xam ne baat Sidna Omar daal ne Omar ci xàq li ngay jaamu ndax Muhammad mu ngi dund mu ne sallallahu alayhi wa sallam ndax ma tontu ko mu ne ko waaw wax ko mu ne ko mu ngi dégg li ngay wax mu ne ko ah li ma wax de laa gën a gëm ci waxi mbay mu xal mbay mu xal waa ji saay saay la woon bi nga xamee ne dafa ne moom dafay rey yonente bi salaam fekk waxoon na ko ko ca Màkka bu ko sama jaay ci ji lay moom laa lay reyee mu ne ko déedéet man maa lay rey bi nga xam ne ubay mu xalaf euh, jëm si la jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk bu néew ñoo xam ne ñoo nekk ci diggante ba moom ku mu njëkk a jot rek felat sa bopp mu wadd ba benn jigéen boo xam ne ndox la daan yenu di tànk di jox xarekat yi ñu agsee ci moom kooku dal di say ndax li mu defoon ndox ba ci geeseem fekk rey na ji lu ba juróom-benn nit nee na dóor naa ubay ñetti jaasi waaye noonu yàlla boobu fekk na ñetti mbubbi koŋ la sol mu bëtt rek jullit ñi ba àgg ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mu ko jubee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di fat na xerbat lance ci ki mu dendaloon rek ñu takk ko mu dal ci yàqu mbagg bi mu xotti ko mu dal tëdd ci kaw fas bi bi mu agsee morom ñi yëfëram ñi ne ko yaa nga yow xos xosiku xosiku mu ni la wallahi Muhammad bu ma taf bu ma taf li woon sax ma dee waxoon na ma dem naa ko ne moom ay rey waaw gis ni kon sallallahu alayhi wa sallam jàmbaar bu googu ak fitam mu dal woowu noonu itam la àndoon ak sagoom ak teey day toll si diggante boo xam ne saxaaba yëpp dañuy ba nga xam ne kenn ku nekk rek bu ñu la bàyyi woon nga def njaaxum mu ànd ak sagoom rek benn yow ñoom ko fay bor tuddagul bor bi ak si rek ne ko yéen gi banu Abdul Muttalib ñun mën naxasaale bor ngeen ñu dëgër ngeen xanaa dooma fay sama bor bi yéen ñi doy waar dal di xaste sidna Umar dal di mer dal ne rasulullah sama may ma ndigal ma rey ko mu ne ko déedéet li mu gën a aajowoo ci yow man ak yahud bi yëpp du loolu man nañ ma digal may fay fayin wu rafet digal ko muy fayu fayin wu rafet wala ba tikku bi ne ko yow sa bor bi ëllëg la du tey ngeen ne noonu ko kooku wax foñee ko di ko gësam di ko xas di xas mbokkam yi mbokkal yépp di leen wax ni naa saalikati bor ngeen mu ànd ak sagom rek te bor bi jotagul waaye teewul mu ànd ak sagom ba wan ko ne bor bi ëllëg laa ko war a fay ëllëg lañu waxante woon lu mel noonu bari lool muy séddale bis asaka yi muy séddale am benn naafiq fiq xam ngeen ne mooy ñi nga xam ne dañoo wane ne jullit lañu te tuub gi àggul ci seen xol gëmuñu yàlla ñu jaxasoo jullit ñi nekk ñu ay métit ci jullit ñi ndax dañuy def lu bon te yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ko saabay waxee ne nañu rey diw mi lim def rey war na ci mu ne leen waaw bu ma leen reyee ñu ne Muhammad dañ mu ngi rey saab yi gannaaw ñoom dañuy julli di woor man dañ maa yónni ci jullit ñi ci doomu aadama yi ma di leen woo jëme ci yàlla bañ wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah jëfe ko buñ ko jëfee wax ko wàccoon naa ñoom yàlla moo ñu moo nag moo leen di atte moo xam seen biir man ci kaw rek lañ ma atte loo nafiq yooyu nekk di jaxase jullit ñi waxtu wu nekk xam ngeen ne waa Madina di fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaari jig yi fi nekkoon muy Laws ak ak dañoo ma a nag jubóo di ko nekk daan xare léeg-léeg ñii gañe léeg bi yonent bi sallallahu ñëwee ba jubale leen ñuy fàttaliku kenn ku ci nekk fàttaliku ci maam fa mu xaree maam ñëwee ba gañe ba xam ne buñ ko tuddee rek seytaane man leen ba ñu bëgg a dellu ca la woon ay yoon yoon Abdullah ibn Ubay ibn Salul moomu di delloo si ay yooyu yi passé woon waaye yonent bi sallallahu ànd ak sagoom rek ànd ak nooyam googu fexe ba caay caay googu ak ay woowu kooku di xamlu du sotti mukk noonu xam ne njàmbaaram noonu la mate woon kattanu yaramam mate ko sagoon soosu mate ko xam-xamam bi mate ko xam-xamam bi xam ne moom la ko suñu borom jox doy na ci moom ci boppam mosu la nangoo wat woote ne xamul lu dul li ko borom xamal waaye buñ doon lim li mu wax yépp te ak seegul ba seen toll ak yi ñëwul te dara du ci mooy lu xam ne suñu bopp xamal na ko xam-xam boo xam ne xamu ko lépp loo gis mu xew ci jamono yii ba ci jamono yi ñëw waxoon na ko décriroon na mujj jamono ni muy mel ni nit ñi mel soppiku bu ñuy soppiku ba ci jullit ñi xew xew yi yàqu-yàqu yi nit ñi ñuy dévier ñi ñuy wëlbatikoo ñu leen seytaane di mëne ñu leen seen bànneex di mëne ñu leen bëgg matériel di mëne bañ leen ñorop bañ àgg ci mujj mujj gaa mujj mujj ba bari ñu upp bunti tuub gis nañu li ñu ñu ay voyant ñu xam ne benn ñuy ay astrologue di xool ci astre asamaan si planètes yi di wax seen i jeexit kaw suuf xam ne bu ak teew ñu nangam dana am nangam dana am ak ñi xam ne bu ñu seet ci biddiw yi suñu dafa def ci ñoom rapport bi nga xam may leen ñi xam xam-xam boo xam ne dafa aju ci lu ak seegul te war a ñëw loolu naka jëkk muy am ci jamono xam nga ne astrologue yooyu dañoo tëral xew-xew ci biddéew yi ci asamaan bu ne biddéew yu bari na li ñuy wax kawkab ak li ñu wax naj maanaam li ñuy wax planète ak li ñuy wax astre ci ñu tuddee ak nizaamu samsi maanaam système solaire biddéew yi ci nekk yoon yi ñuy jaar ñu ñuy wëndeenoo ñu daal di dem ba ñoom saxal ne am na jeexi yu muy jeexi ci kaw suuf diggante yoo xam ne li ñuy wax al wadu al faraki al wadu al faraki li nga xam ne la astronome yi di créé di binde carte ci jamono bu nekk ni biddiw yi jaarante ci seeni yoon bu ñu bëggee seet dañuy tëral fëlëg bu ci nekk biddiw bu ci nekk fa mu toll ak jeexit ja ba dal di conclure ne nangam dana am nangam dana am am dee lu bari dana am xare dana am xuloo bu bari dana am ak jubóo jikoo jàmm dana am nawet bu baax dana am wala du am at mu naqari dana am feebar dana bari wala du bari yooyu yëpp ko wax ñenn ñi ko ci biddew yi ci ni rapport seen roo ak seen yaram demee te duñu jinne duñu walaay te duñu yonent ay xeet lañu ñii dañuy fab nañ fexe ba soxlaal seen bopp occupé seen xel ci lenn benn ñuy xool ci doj wala ñuy xool ci seen loxo wala ñuy xool ci foofu gëréen wala ñuy xool ci yax wala bant bu ko defee insaan yi gi nga xam ne moo watoon ci ñoom maanaam aadama yi gi maanaam doomu aadama gi dal di doye di ruuxaani gi ëpp ko doole ñu dal am lu ump ñu gis ay kumpa di ko wax waxtaan nañu mbirum siqa almaar waxtaan nañu mbirum satix moom itam ñu demee noonu fii ci Afrique ba lool gis ko ci Europe gis ko ci Amérique bu ñu seetee ñi ci gën a fort li ñu waxoon lépp day am ay détails yu leen nëbbu yoo xam ne duñ ko nettali ba mu leer nañ nañ ndax seen xam-xam du ci ànd ndax ak duñu ci nubuwa li ñuy wax nubuwa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom daf ko wax ba mu leer nañ ba nga xam ne rek boo ko gisee rek xam ko waxtaan nañ ay jiwu jamono jigéen ñu nekk Amérique ay italienne cristal ñu seet li mu wax yëpp li ma téeméer yi mu wax yu ñëwagul gis ñaar rek nekk ci yu ñëwagul yi ci ñu dem ba yëpp rek am ci yonent bi salaatu ba du wax lu wax ne lu dul am na ba dara gis ci détails yi ni ñu koy waxee lépp mën xam ne kon te lépp xool ci bant wala yax wala lenn lépp noonu kuy xool ci biddiw yi lépp noonu kuy gisaane wala dara suñu borom daf koy li mu xam ci melo yu ko mel mu di roxaane bi ëpp doole fuuf jumaane bi ba xam ne not na ko not bokk yoo xam ne miraayita ni jege na ko mu daal di am diisaayu diis goo xam ne moom ci boppam du bokk ak diisaayu liy wàcc ci moom du bokk ak diisaayu malaayika mi nga xam ne mooy wàcce liy wàcc ci moom ñu gis ne alayhi salaatu wasalaam waxtu woo xam ne ne jibril jege na ko te indi waxyu dana wuute bu jibril ñëwee te indiwul waxyu waxyu mooy lan révélation mooy aay alquran yi wàcc waxtaane dana ko ci ay waxtaan yu bare bare bare malaayka bu dee wàcc te indiwul alquran du am diisaayu bu toll ne diisaayu aaya yi lu tax aaya yi di diis day ànd ak secret ba nga xam ne nit ñi duñ ko xam nga gis ne xale bu tuuti dana jàng aaya bi ba mokkal ko di ko tari te du yëg dara nga gis ne yonente bi sallallahu alayhi moom bu aaya dee wàcc moom ci boppam bu ko dana génn ci melaw nit dikk ci melaw malaayka bu ko defee malaaka dëgg lay doon moo xam ne wax yi bi muy attan du malaaka yëpp a koy attan jibril bi nga xam ne moom la la suñu borom def mu attan ci diisaayu wax la-ra'aytahu xaashi'an mutadammiran min xashyatillaah aaya bu wàccoon ci kaw montagne bi a dëgër nga gis montagne bi dal di commencé fett di toj ba tasaaroo ndax diisaayu aaya ji ndax secret bi bu fekkee ne wàccaale na secret ba jibril bi moo amee aaya ji di ko indi te secret ba nekk ca mu di ko wàcce ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam buy moom du ñuroog bu dee ñëw te indiwul aaya gis ngeen ne yonente yi bu malaayika yi bu ci nekk ak liggéey bi ñu ko sant malaayika yi nga xam ne bu nit ci jubee di wattandiku lu bon dañuy xaritoog moom inna alladina a rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tuaduna ndax nit ki nga xam ne dafa jub tey jaamu yàlla ruuxam day gën a sell di gën a sell ba nga xam ne bu fekkoon ne yow am nga basira ba jàngoog ruuxam doo gis benn tomb bu ñuul wala tomb bu xonq wala bu boo xam ne li ci li ci def daf koo gën a weex wala boo xam ne dafa jaune da ngay gis lépp maasala waaye loolu daraja la joo xam ne ñu néew ca àgg aarifuuna billahi nga xam ne dañoo jege yàlla ba jege yàlla ba jege yàlla sax fokk lu néew néew nga gis ay tomb yu gën a sew yu gën a néew nekk ci xaala bi nga xam ne mooy wër ruux gi ndax ruux dañoo am kattanu jàppante ruuxu kii dund ak ruuxu ku dee ak ruuxu malaayika dañoo am xeetoo boo xam ne ay jàppante moo nekk seen diggante ruux yi nga xam ne dañoo sell seen borom àggagul ci di yëg ni muy jëfanteeg malaayika yi waaye malaayika yi dafa am ci ñoo xam ne ñu ngi liggéeyee aar ruu yi ci kaw suuf te gëm ak ci xam ne seen liggéey mooy dëgal leen ñii seen liggéey mooy dolli seen leer bu ñu ne kon ruu yi noonu la ñu xam ne dañuy jëriñante ndax jëriñante gi ñuy jëriñante ñu ne ruu xam ne ñu nga nekk barsax barsax mooy bërëb bi nga xam ne saa taxawagul àllaaxira ñëwagul te génn nañ ci adduna maanaam faatu nañu roo yi ñu roo yooyu ñun seen bopp ni ni ñuy jëriñee roox yi ñuy dund roox yi ñenn ak ñuy dund ni ñuy jëriñee roox yi ña ca barsa bu ci nekk wala ñu tegte yu bir yoo xam ne jullit bi bu ko xamee dana am ay defin yu muy bàyyi ak defin yu muy def ak diggante yu mu mën a gaaw a jëriñoo ak diggante yoo xam ne dana ca mën a loroo mu wattu ko dana ko xamal nan lay jëfe ci diggante yooyu ne bu ñu seetee ne boo jàngee risaala téere bi nga xam ne moo gën a jege tamit gis ñaan bu ñuy ñaan bu xaleel bu ndaw faatoo mu bokk ca ña yonte Yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam di yar di leen jàngal xam ne kon ba sax daañu fa jàng te tey bari rek bi nga xamee ne Ahmad mu Mubarak nekk na ci diggante nelaw ak yow gis Cheikh Abdoul Aziz Dabakh sëriñam fekk booba dafa bëggoon a bind ci baatu limaamul Xasaali boobu muy wax ne laysa fil imkaani abdaa mimmaa kaana mu ni baat bu yéeme boo xam ne ulama yi dañ cee wuute lu bari. Ahmad mu Mubarak gis Abdoul Aziz Dabakh dikk ba agsi ci moom ne ko ah na nga def nànk na nga teey kii ngay bëgg bind ci moom muy Xasaali kat ci wàllu yu mag yee mag a mag la bokk xutbu la. mu ngi yére yoo xam ne waxtu boo ko gisee xeet sama bopp te Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ci xutbul xawsa ñi nga xam ne ñooy amee jamono nee na bu gisee xasaali ak yére yoo rek dana xeet boppam mu ni waaye xasaali yu bari na ci xam-xam yi nga xam ne mu daf koy jëriñ ca barsax nga gis ne kon waa barsax daañu jëriñu ci seen ruuxi borom daañu yokku xam-xam ndax xam-xam ni muy jëriñe fii adduna lay jëriñe ca barsax nga gis ne imaamul Xasaali kon mu ngi sàkku dolliku ci xam-xam ca bar sàkk kon ruuxu ku fi jógee na muy jëriñee ruuxu ku fi jógee wax nañ ko léegi ci xale yi nga xam ne yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam moo leen yar di leen di jàngal gis nañ ko ci diggante limaamul Xasaali ak Cheikh Aziz Dabba ñu gis itam kon nag diggante ruuxu kuy dund ak keneen kuy dund ñu xam ne ne ruux ci boppam waxoon naa ne dafa am li ñuy tuddee haala li tubaab di wax xayo léeg-léeg wala si dañu naan weer bi dafa fénc muy rëdd wu ko wër noonu nekk cercle roox bu fekkente ne ku am basir dana gis ne nit ki xaala boobu dafa tiim boppam ci lay xàmmee roo gu set wecc ak gu set wecc roo ki texe ba ak texe mat ak roo ki texe di ci couleur yi muy amee bu fekkente ne nag jëmm ji dafa gëm nit ku baax ki jóg di ko ziar waxtaan nañ ko ay yoon roo yi dana tax daañu jërëjënte ci seeni borom ni ñu mën a jikko moo tax roy ku baax am njëriñ niroog yi ñu mën a jikko ruufu ki nga xam ne mooy nitu yàlla ki moo xam mu jóge fi wala mu ngi fi day xëcc ruufu ki mu nirool jikko ci di ko leeral ak di ko jëriñ ak di ko fóot di ko setal te xam nga doomu aadama bu ci jógee ba roxam nekk bar sax itam jëmm ji ni mu amee woon wëllëre ak roo gi ci muy dund ci adduna bàmmeel bi ñu ko suul roo gi koy faral di nemme ko te daf koy fàttaliku te daf koy geesu fu mu toll moo tax ñuy ziare bàmmeeli nit ku baax bu ñu ziare benn mu nga fa wala nekku fa waaye roo gi dafa mel ne ki nga xam ne dafa denc alalam ju bari ci béréb di ko xalaat toujours xelam bi ko jóg noonu la ruuxu tedd ki di xalaate béréb bi xam ne ci lañ denc jëmmam noonu muy euh, xet ñu ko euh, jëmm ji nga xam ne fi ko denc te jëmm ji la taqooloon ci adduna ba miinante ba fasante walëre noonu bu ñu dee waxtaane jëmm ji tam ak ni mu nekk woon ci adduna roo gi noonu lay na meloon ba di koy yóbbu ba tax ñu ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahmat waxtu wu ñuy waxtaane daañu baax ne yooyu yërmande yàlla day wàcce ndax roo yu sell yooyu dañuy wàcc ca la fóot ruux yi nga xam ne ñoo teew <coughs> ruux yi nag ci seenu jëriñante loo xëy ci nuróog jikko ak ci cofeel ak ci roy moo tax sëriñ bi sëriñ bi nag sëriñ ki ko gën a roy ba ñu ne moom jikko lay gën a jëriñ ci bi nekkee barsax ak bu yemal xiyaane ci yaram mu nga mooy jiitu itam ki koy roy ba ñu ne moom jikko ki ko soppi itam noonu cofeel buum la boo xam ne day boole ruu yi di leen xëcc ñu jege yoo bu fekkente ne ni mu waxee roobu ñi fi jóge ñaar ñi fi jóge ni ñuy jëriñantee wax naa roobu ku fi jóge ni muy jëriñee ki fi teew Ahmadu Mubarak bi ma bëggee bind ci Xasaali yi te Xasaali yi koo xam ne boo bindee ci moom lu bon suñu borom bon la ko moom mu jóge ca barsax ba mu nekk ñëw ci taalib boobu nga xam ne borom xam-xam la di ko wattandikuloo ngaañ ak ay yu nekk ci euh, wax bind ci nitu yàlla lu dul noonu kon roobu ku fi jóge dana jëriñ mm, koo xam ne mu ngi fi kon dana ko jëriñ ci ziare bi ziare ci waxtaane ko dana ko jëriñ ci sa xel nekk ci moom nga di ko xalaat loolu yëpp dana ko jëriñ kon ruux yi ñaar ñi moom ñaar ñuy dund daanaka soxlawul wax gis beneen bi gis ko doomu aadama buñ ne kenn mu kenn mënu la jëriñ kenn dara wax ji yàqu la ak àlluma ju gàtt nit nit a koy jëriñ moo tax yàlla boole nit ñi ci àdduna nit nit ne moom ñoo koy for ñooy dagg lu ñoo koy sang ñoo koy tudd ñoo koy yar ñoo koy jàngal ñoo koy xamal lislaam fi jógee ñoo koy sang ñoo koy sang ñoo koy jullee ñoo koy ñaanal it bu fi jógee ban doomu aadama li nga xam ne suñu borom daf koy joxe mu jógee ci moom jëm ci doomu aadama yi dund ci àdduna ci loxo doomu aadama la koy jaarale ci loxo doomu aadama rek la koy jaarale kon doomu aadama bi lu mu xam ci nit la ko xamee bu dee da nga koo jàng ci téere bi nit a ko bindoon bu dee da ngaa toog ñu di ko wax nit a koy wax bu dee itam da ngaa gént gis nit ki mu wax la nit la kon nit ma mën a jëriñ nit nit mën na jëriñ nit njëriñ bu doy waar xanaa njëriñ mu ngi ci fekk nit ku dul yonent nga jëriñ ko ba def ko mu yonent diggante Muusaa ak Haaroon Muusaa bi nga xamee ni mu ngi wax ak suñu borom tabaraka wa taala Haaroon nit simple la du woon Moussa ne suñu borom Haaruna axi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kasiran wa nadkuraka kasiran innaka kunta minal basiran mu ne ko qad wujita su'laka yaa Moussa may nañ la li nga laaj ah Haaruna nag di nekk yonent nit faggul beneen nit ak yonent foofu la njëriñ mën a yem kon bi ñu noppee ci niir wax yi di jëriñante ci naaw nekk. mu gis ne kon bu ñu dellu see ci roy lu mu waxtaane jikko yonent bi sallallahu ay ramu la ramu bu njëkk bi mooy lañ ko jagleel mooy bu doomu yi taxawee garab yi taxawee juróom fukki junni at xamsiina alfu sanatin nit ñi di xuus ci seen ñaq ñii la xam leen waxtaan nañ ko ay yoon juróom fukki junni ak yàgg ba kenn ku nekk ngéejoo na la suñu borom atte boo dee dem safara sax nga dem ba ram moomu yonent bu nekk dem nañ ci yow ngir nga wax suñu borom ba mu atte doomu aadama yi taxawaay bu metti kenn ñi mu faa dem ngir mer moo xam ne suñu borom mer na ko ci bis boobu ba mu def Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis boobu moom moo am fitu moo am sañ-sañ ak mayu ak bëgg gi ko suñu borom bëgg ak tànn gi mu ko tànn def ko muy muy yërmande mbindeef yëpp asifaal kubra wax ba àgg ci rasulullah ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di sujjóot ci kanamam suñu borom xamal ko ci diggante boobu xeeti sàbba yoo xam ne mosu koo xam moom ci boppam waxuma la meneen mbindeef di ko xam suñu borom ne ko yëkkatil sa loo ñaan ñu may la ko loo jéggal ñu jéggal la booba lañ sooga nag atte jaam ñi jële leen ci tiis mooy asifaatul kubra jullit ak yéefar ñëpp a ci yem kon moo tax mu ne innama ana rahmatul muhdaatu man du ma lenn lu dul yërmande ji sunu moom wàcce ci kaw suuf si rahmatul muhdaatu la ramum ñaareel bi moom yonent yëpp daañu ramum malaayika yëpp daañu ramum aqtaab yëpp abdaal yi aarifoona billahi sidiqoona yëpp daañu ramum ulamaawul aamiloona yëpp daañu ramum ba ci ni ma ko waxee doom yu seen waajur gërëm sax daañu ramum dom adama ah, dana ramu xaritam dana ramu sax ku ko mas a may ndox mu naan te mom du yonent du du malaika du siddiq mu ramu ko dom adama ah, dana ramu koo xam ne daf koo amee xaq yowmal waye ramu ko ko ni muy demee moom it waxtan nañ ko ba nit ki day amee ay haq indi jaamu yalla bu bari borom haqi di fa seeni haq ba deseetul dara ci jaamu yàlla benn waaye taxaw di ko laaj xàqam amul ñu ko faye loolu yëpp lu ci rek luñ mës a waxtaane ba tàyyi la ah, waa gi ne suñu borom waxal kii dama fay waaye amel dama xàq de mu ne ah nee na waaw na may def nag na ngay asamaan mu téen gis gën a kéemaani